bokk na ci waxam yu am njariñ tey lu mat a bàyyi xel. dafa wax ne taalibe yi dañ maa bett. ma bettaat leen. ñu dellu ma bett ma dellu leen bettati. waaye dootuñu bett ba mukk de. fi ma njëkk a bette mooy bi may jug jëm ci sama borom. yaakaaruma woon picc topp ma. ma geesu gis mbooloo ma foogul. fiñ ma bettaate. Euh, fi ma leen bettaate. mooy biñ ma toppee ñoom dañoo jàpp ne àjjana rek laa leen mënoon. mooy ëllëg. ma may leen ci àddina si xéewal guñ foogutoon. fi ñu ma bettaate ñoom mooy bi ma leen joxee xéewal gi damaa jàppoon dañ koy delloo ci seen borom waaye ñu mujj di ko fawe fi ma leen di bettaate nag mooy dootuma seexal kenn waaye ku jub ma nekk ci sa jiba mooy ku jub loo am bëgg loo bëgg rek am ko